salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa univers bio tey nag dañ leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génne ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee ci seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estomac bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale rab ak jinne ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale waa ñun waa bi bio ku soxla sunu numéro nag dangay def 77 160 93 93 sama mbokk yi dëkk Touba te soxla woon produit mauvaise haleine bi numéro téléphone bi nag mooy 76 283 98 69 Touba Jannatul Maxwa ci wetu la hôpitalu Matlaboul nii